yàlla ñu ngi ñaan Sénégal bon vraiment dem final et puis indil ñu coupe bi quoi. waaw bien sûr bien sûr ñu ngi ci gis suñu bopp baax baax parce que boo seetee plus Sénégal di avancer bon plus mooy di gën jar ñi di commander ay lacoste ñi di commander ay maillot ñenn ñi di floqué ñenn ñi duñ floqué fu mu toll nii flocage bi dox na ça c'est d'un ensuite jaay maillot bi dox na même yeneen articles yi aussi ñu ngi leen di floqué fu mu toll nii di leen jaay. donc fu mu toll n vraiment Sénégal day doxloo marché bi vraiment. day doxloo prix bi day varier quoi am na ñoo xam te ne toll nii dañ koy yokk jaaykatu détaillants yi dañuy yokk ñoom fu mu toll nii mais ñiy jaay en gros ñooy gën a neex ñooy a neex jëndee jamono yi fu mu toll nii waaw fu mu toll nii am na ñoo xam te ni fu mu toll nii maillot bi original bi ñu ngi koy jaay ba 15000 waaw fu mu toll nag beneen bi am na ñu koy jaay ba 4000 am na ñuy jaayee 3000 léegi nag da ngay jënd ba pare dem ci dem ci ñuy floqué ñu floqué la loolu moo nekk ci marché bi fu mu toll nii. waaw waaw man maa ngi njóobeen taay fi ndox mi doon taa noon ci marché bi bon sama place en face tali bi la waaw foo ñëw vraiment di nga am maillot di nga am lacoste di nga am article vraiment. nga xam nga moom affaire ambiance la rek euh, Sénégal moo ko laaj ndax doon bi ah, commencement bi gars yi am na ñu gëmoon am na ñu gëmut des fois nga gis ay benn moyen ki defoon benn moyen defoon benn tiset mais lu ñuy gën a dem rek affaire bi gën a yokk commande bi gën a yokk. mais ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. nag doo ko mën a compter mais des par jour daal mën ngaa dóor par ay 10 jëm kaw xam nga taaw ni bokkul nag quoi xam nga Dakar ak fii tamit bokkul condition yi bokkul quoi. moment bi ñu ne daanaka daanaka li ma doon floqué ba léegi yokku ma ko quoi li ma doon dóoree booy 2500 2000 daanaka yokku na xam nga rek Diourbel moo demee noonu quoi il faut nga jàppale gars yi bañ a yenn prix yi quoi. des am na différence am na différence na tiset bi des fois mën naa jël transfert mooy mu jël flocage. ñoom flocage ak transfert bokkul quoi loolu nag daanaka ñi siy liggéey ñoom ñoo koy xam quoi mais bokkul quoi mais daanaka yëpp benn la rek na yëpp day leer rek mais yëpp day leer bu si nekk daam bu matière bi muy jàpp rek. Ah, ñooy sant rek sant alhamdulilah a xam moom da ngay fortaatu dara rek. na des fois kenn day ñëw yor benn 1000 francs doo ko mën a gàndu il faut nga jàpp si defara ko na taan moo ko laaj xam nga dëkk bu nekk ak lim laaj quoi. fekkee ay Dakar moom amul amul complexe danga naan dangay ñëw mën a la mooy vingt mille. jël wala nga daal di bàyyi te fii nag xam nga rek. yaa yaa gars yi yéen a dëkk doo mën def yenn business yi quoi da nga siy jàppale ku nekk for dara affaire mu daal di avancer quoi mais sant yàlla rek. alhamdulilah jàmm ji rek moo am solo quoi respect bi.